grandes lignes et parler l'essentiel. Donc mon projet est intitulé euh, Diaguinar, c'est un projet de vente de poulet dont l'entreprise, dont l'entreprise, le nom de l'entreprise est Bar Chicken. Le choix de ces noms n'est pas au hasard puisque Bar Chicken fera référence au bon poulet en Wolof et aussi Bar sera aussi euh, comme mon nom de famille. Aussi, le projet Diaguinar constitue un projet qui s'articule dans l'entrepreneuriat des jeunes, dont ici l'EDEM nous a proposé la formation. Donc, euh, le projet Diaguinar est un projet qui va dans l'entrepreneuriat dont le promoteur est Moudou Sarigo, ici présent devant vous. Le choix de l'entreprise est Bach Chicken. Donc, je me lance dans ce projet d'entrepreneuriat qui, euh, le bar chicken qui s'évolue dans la commercialisation des poulets de chair et le, la promotion de produits locaux. Et dans ce domaine, on a la filière euh, aviaire, donc la filière de volaille. Excusez-moi, j'ai un peu l'air nerveux qui monte. Je vais essayer de Donc, on a fait euh, une étude de marché, la présentation du produit. Le produit est le poulet de chair. On a choisi le poulet entier. Donc, ça sera une vente en poulet entier, en poulet euh, déchiqueté, poulet détaillé, c'est-à-dire les cuisses de poulet, l'aile de poulet et le blanc de poulet. Donc, l'étude les marchés cibles, on a une demande et l'offre et la taille du marché qui est importante. Donc le soir des jeunes, on a le grand marché de Thiès et le quartier Grand Standing dont j'habite. Ce, sont les marchés cibles de vente de poulet. Donc notre plan marketing. Notre plan marketing consiste les 4 P qui est le produit, la promotion, le prix et le place. Le produit, le produit que j'ai présenté tout à l'heure qui est le poulet de chair. Euh, qui le poulet de Euh, on a le poulet entier, les cuisses de poulet, l'aile de poulet et le blanc de poulet. Donc, euh, ça c'est le produit. La promotion, la promotion du produit. On va utiliser euh, la promotion physique qui le, le, de bouche à oreille fait pour faire euh, connaître notre produit, de faire des porte-à-porte. -porte. Aussi, on va utiliser les plateformes digitales comme les applications WhatsApp, Facebook, Instagram ou bien faire les utiliser les médias sociaux les, les médias comme les radios pour faire publier notre produit ça c'est le euh, plan marketing aussi euh, c'est la promotion le prix le choix du prix euh, n'est pas fixé mais ça consistera de l'approvisionnement du traitement du poulet c'est-à-dire de euh, traitement du produit l'abattage l'emballage la conservation jusqu'aux livraisons et euh, et aussi jusqu'aux livraisons consistera le choix du prix. Et le prix ne va être abordable pour le client. Et aussi, euh, on a aussi fait l'étude du pouvoir d'achat des, des, cibles pour pouvoir, faire, pour pouvoir fixer notre prix qui sera abordable pour tout le monde. Donc, le place. Le consiste euh, à utiliser un lieu de vente. On aura bien sûr un place fixe qui sera l'adresse, le nom de l'entreprise, euh, portera le nom, de, nom du projet, l'adresse et toutes les coordonnées de l'entreprise, mais aussi on fera des canaux, euh, de, des canaux euh, courts, c'est-à-dire aller, avec, euh, avec, aller directement en contact avec le client pour faire euh, vendre notre poulet. Aussi, on va utiliser euh, le canal long, c'est-à-dire faire des, faire des livraisons sur des grandes surfaces sur des restaurants qui vont traiter le poulet en un euh, autre état, c'est-à-dire l'état consommable pour les restaurants et les hôtels. Donc, l'étude technique, on a parlé des aspects légaux. L'entreprise est dans les démarches administratives pour trouver tous les papiers administratifs qui va lui euh, pour, qui va lui permettre d'être légal et reconnu pour pouvoir euh, faire ses activités. Euh, l'approvisionnement, Et la, la méthode de production consistera, donc l'entreprise, par le biais du gestionnaire, ça consistera d'aller dans les élevages, de trouver le bon poulet, c'est-à-dire le poulet de qualité, trouver euh, le poulet bien entretenu, bien euh, alimenté et bien, bien, soigné pour trouver euh, du, du, euh, du, du bon poulet. Ça sera euh, le poids, consistera de faire le grammage, trouver le poids, aussi la, la salubrité, puisque nous voulons pro, euh, proposer des produits en qualité. Donc, l'approvisionnement consistera d'aller cibler les bons poulets, euh, l'acheter, faire de l'abattage, euh, le plumage, l'emballage des poulets et euh, la conservation jusqu'à la livraison du, du, poulet. Donc, on a parlé aussi des, des besoins en main-d'œuvre. L'entreprise aura besoin de 4 employé, d'un gestionnaire qui va gérer tout ce qui est trouver le produit, faire, euh, faire, faire marcher le produit, faire vendre le produit. On aura besoin d'un comptable qui va gérer tout ce qui est argent et prix. On aura besoin d'un livreur qui va faire euh, part le produit jusqu'au jusqu'au client. Aussi, on aura besoin d'un ouvrier qui va gérer les autres tâches. Les besoins en investissement. Pour les besoins en investissement, nous avons besoin de 1 400 000 francs pour, euh, pour, comment, pour démarrer le projet, puisque les matériaux requis, euh, les matériaux qu'on aura besoin seront euh, d'un congélateur, euh, des matériaux d'abattage, des matériaux d'emballage, on aura besoin d'un moto tchak, tchak pour la livraison, euh, ainsi de suite. Pour le besoin en fonds de roulement, pour les besoins en fonds de roulement, euh, l'entreprise aura besoin de 7 600 000 francs pour, euh, pour, pour, faire, pour pouvoir faire les activités, puisque l'entreprise aura besoin de payer ses, salariés, euh, ses, ses, ses ouvriers, de payer l'électricité, le transport et, et autres. Euh, pour le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à 38 160 000 par an pour l'entreprise. Donc l'étude financière, le, plan de finance l'investissement, Euh, pour l'apport personnel de, de, de l'entreprise, on a francs. On espère avoir un financement de 500 000 francs ici à l'EDEP. Donc l'emprunt 1 consistera à, euh, à, 8 000, euh, à 8 francs. Donc le plan de finance, euh, je, je l'ai cité. Le coût total du projet est à 9 millions. 9 millions, vous voyez, vous voyez ici. on a l'investissement, le budget en fonds de roulement et le coût total du, du projet. Donc, en grosso modo, c'était euh, l'essentiel des grandes lignes du projet. Donc, je vais, euh, terminer par remercier notre seul professeur Mouchembaï, que je vous demande d'applaudir très fort. Euh, je le dis pourquoi Parce que Il n'a ménagé aucun effort à nous aider jusqu'à là, jusqu'à réaliser nos besoins et euh, ce que nous passionne le plus dans, dans, dans le domaine et dans l'activité économique. Donc il n'a ménagé aucun effort à nous aider, à nous instruire. Nous étions, pas, euh, nous étions nombreux à participer, mais il a su gérer tout le monde et faire de telle sorte que tous les participants ont réalisé le projet. Donc euh, devant la directrice qui était absente, je vous demande encore de l'applaudir très fort. Donc je vais remercier aussi la, euh, la, directrice de l'EDEP et tous ses euh, collaborateurs et tous ses partenaires et les gens de l'EDEP qui sont formidables, vraiment, qui nous mettent de bonnes conditions de travail pour pouvoir réaliser tout cela. Donc sur ce, je vous remercie. Je pense se représente euh, l'esprit euh, de laisser, je le sens. J'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec euh, tous les jeunes de Thiès comme ça. Et euh, j'ai pas beaucoup, de temps. Il faut m'excuser à ce point-là. Je sais que vous avez investi beaucoup de temps aussi à préparer Mais c'est bien, ça c'est très bien. Il faut pour vous réinvestir beaucoup plus de temps à concrétiser à chaque fois votre projet. Et à la limite, si vous avez la possibilité de réduire la présentation euh, de vos projets à deux minutes, ça serait encore mieux. Mais faites-le, faites-le pas devant que chez moi, faites-le devant vos tantes, vos oncles, vos pères, vos mères, et ainsi de suite. Il faut l'essayer, le réessayer, le réessayer. À la fin, vous allez voir quel est l'essentiel de mon business. Vous allez le connaître. Au début, c'est dix minutes. Vous allez partir, par, parler Et à la fin, c'est deux minutes parce que vous allez connaître l'essentiel. Et ça, c'est l'esprit, être à l'essentiel. Maintenant, l'école vous a accompagné de donner euh, les formations euh, gratuitement. Vous avez tous déjà investi beaucoup de temps pour euh, développer vos, euh, vos projets, vos business et ainsi de suite. Et maintenant, Mon mandat personnel, il va s'arrêter, comme je l'avais dit. La GIZ va pas et jamais quitter euh, Thiès, mais notre projet va se réorganiser vers des zones frontalières. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus là à Thiès, ça veut dire qu'on va continuer. J'ai dit à Madame So qu'il y a des autres, beaucoup d'autres projets. Et maintenant, je pense que vous allez voir ensemble, resélectionner les niveaux, n'est-ce pas, les, les différents besoins de somme, même aussi, petite suggestion, euh, au lieu de 9 millions, il faut le un peu plus humble et ça peut aller, ça peut fonctionner, empêche, ça peut aller. ARD, ça peut fonctionner. Il y a beaucoup d'institutions qui peuvent, personne vous, euh, vont vous empêcher d'aller là-bas. Il faut être sûr de plusieurs coups, hein. Et, euh, mais l'école va appuyer à regrouper les besoins peut-être pour les déposer euh, à un moment. Et je serai content à un moment de revenir ici, avoir un bon poulet, Vax Chicken, avoir une bonne chemise, avoir euh, tous les autres projets qui existent ici, un hein, bon flyer. Inch'Allah, euh, que ça va euh, que va, ça va se développer de cette façon. Donc, merci encore une fois. Désolé, j'ai pas du une heure au Sénégal, je dois encore apprendre un peu et devenu deux heures, voire deux heures et demie. Euh, mais je suis très content qu'on s'est vu ici. On va se revoir peut-être dans le quartier dixième ou ailleurs. Euh, je vous souhaite franchement vraiment bonne continuation. Hein. Merci. Merci. Euh, di rafetlu vraiment invitation bi nga xam ne monsieur Massar Seck ak waa EDEP euh, defal nañ ko. ñu ànd ak président de la commission formation bu regroupement des TER de la région de Thiès monsieur Ndiasse Kaye nga dégg témoignage yi Makhtar Seck le professeur euh, def ci moom nga xam ne ñoom ñaar ñoo ànd euh, mu koy encadré ba tey mu toog di leen former kon loolu honneur la pour ñun ñu amaat mbégte moom mu nekk un membre clé du regroupement des TER parce que ku wax volet formation euh, wax jeune vraiment ñu ñëw fekk fi ay jeunes yoo xam ne yu am ambitieux yu am yu am vision yu am ay compétence pour mën a jëmale réew mi ci kanam parce que le secteur de l'artisanat euh, bu fekkee ne dafa nekk cent vingt corps de métier ku ku génn ci école bi réussir li ngay njëkk xalaat mooy nan ngay def ba ba ba entreprendre maanaam seet métier bi nga xam ne moom nga gën a bëgg ci domaine bu ci nekk nga jëm fa dugg pour man fa am benn benn benn benn métier boo xam ne bii di nga ci mën a gagner sa vie dignement donc loolu bu fekkee am na ci corps de métier bi am ci Sénégal am ci textile et habillement ñoom ñu ci def liggéey bu am solo donc dañuy def lu dul rafetlu ko parce que euh, lii formation dafa am solo donc renforcer say capacités encadrer les jeunes pour que ëllëg ñu am ñu am ay xëy loolu dafa dafa am solo donc tout tout à l'heure waa ISEP ñu ngi koy wax ñun on est en partenariat avec l'ISEP de Thiès aussi parce que le regroupement des terres c'est une structure boo xam ni bien organisée nous avons une télévision régionale euh, audiovisuelle sur l'audiovisuel donc ñoom seen stage yi def yëpp aussi au niveau de l'ISEP suñu génnee on a réussi à à recevoir pas mal de de de jeunes étudiantes ah former leen ci ci milieu audiovisuel parce que yemuñu rek ci coupe couture bi parce que on est dans d'autres domaines ci volet audiovisuel bi donc xëy na avec le professeur Matar vous aurez l'occasion de visiter les locaux de, de notre télévision parce que comme dañu nekk ci secteur artisanal bi mais comme lu ñuy wax rek looy def dafay am visibilité donc la visibilité et partout kon loolu moo tax ñu ak euh, accompagne ñu ibbi euh, une télévision boole ko ak structure yi nga xam ne moom la ñu am yépp ak commission yi ñu am sur la volet formation mu gën ci am pàcc bu am solo kon loolu aussi tamit suñu mbégte la ñu ñëw teew fii pour pour remercier leen aussi ci invitation bi waaye lier un partenariat entre l'EDEP l'EDEP de Thiès euh, et le regroupement des tailleurs euh, et la GIZ la GIZ nous a accompagnés euh, durant ces années-là donc na ñu ci domaine yu bari moo xam formation la moo xam les séminaires la moo xam leneen la ñun am nañu occasion vivre loolu dund loolu kon loolu bu ñu ko amee nag muy opportunité ci ñun donc danañ fi ñëw tey pour ñaax leen aussi secteur bi ñu nekk aussi nous sommes dans le secteur de l'artisanat te en tant que chargé de la communication de la chambre des métiers bu Thiès donc ku ne xam na ne cent vingt corps de métier euh, bari na vraiment on vous encourage di leen remercier bu baax ci ci ci formation bi bu ñu fa gisee li nga xam ne les professeurs euh, def nañu ko muy ci coupe couture textile habillement muy Makhtar sec nga xam ne euh, qualité la parce que moom vraiment dafa nekk quelqu'un boo xam ne bii li muy def da ci am passion donc da ci am passion am ci patience donc moo tax tey mu àgg fi mu àgg kon ñu koy ñaanal di ko remercier di remercier tous les apprenants yi nga xam ne teew nañ fi aussi di remercier aussi ñi nga xam ne ñooy porteur de projet yi ñi nga xam ne présenté nañ fi seeni projet muy ay projet yoo xam ne yi ay projets am solo te boo xoolee ay jeunes ñoo ko def du ay mag kon loolu dafay wane ni jeunes yi euh, bokk nañ ci réew mi te jeunes yi bokk nañ ci ñi mën a développer le Sénégal kon donc bu leen xeeb seen bopp fu ngeen dégg fu am formation renforcement de capacité dem leen fexe ba am ci accès dina leen yokk mais du leen wàññi loolu aussi on vous tient à vous tout le monde di remercier délégation bi ñu àndal ñëpp di ñaan yàlla li ngeen fi jàng mu doon réussite doon ndam incha allah rabbi. monom Mambouny Ba. Chers auditoires augustin assemblée c'est un plaisir de nous retrouver ici pour célébrer ces moments de réussite et de succès. Cela ne peut être qu'un bonheur enthousiaste pour demain. prononcées au nom de toute la promotion. Mesdames et messieurs, ce fut un long chemin avant d'arriver ici, avant d'arriver là. Et j'avoue que nous sommes loin d'arriver au sommet de la pyramide. N'empêche, le travail continue. C'est le début de nouvelles aventures. Permettez-moi de remercier ceux sans qui nous ne serons pas là. Je veux nommer, je veux nommer tout d'abord nos parents, qui n'ont amen... qui n'ont qui n'ont aménagé pour réussite de chacun d'entre nous depuis bien des années. Ensuite, comme le dit l'audace, on ne peut récolter que ce que l'on sème. Et le fruit de toute une équipe Je veux nommer tous les acteurs de l'ODEP, de l'administration au corps professoral, de Madame la directrice et nos encadreurs. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier et féliciter la GISN, nos camarades, nos encadreurs, mais aussi toute personne qui a effectué et déplacé pour assister à ces moments de communion qui n'arrivent que rarement dans nos vies. Nous prions que cela ne soit pas le cas et que l'opportunité se présente au quotidien de chacun d'entre nous. Je souhaite à la promotion une carrière professionnelle pleine de succès. Merci de votre aimable attention. Je commence à remercier ce qu'on appelle euh, tout le personnel de l'EDEP, donc en commençant par la directrice, donc les encadreurs, donc pour leurs engagements aussi, pour leurs engagements donc, et aussi surtout pour leur persévérance à encadrer et à former ces jeunes-là. Donc je vais revenir tout simplement sur l'objectif de ces formations-là, parce qu'on vous avait proposé cinq formations à la fois. Donc ces formations-là, ça répond à la demande des entreprises. Donc, il fois que vous avez suivi ces formations-là et vous avez accueilli des compétences, vous pouvez être à l'aise où que vous allez dans la vie, où que vous soyez aussi, dans les entreprises. Donc, il suffit juste par rapport à ma formation aussi en comptabilité. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être encadré par moi, donc sur le logiciel sage comptabilité aussi, ce que je vous demande, c'est de vous exercer. Parce que les exercices, donc, sont primordiaux. Donc, si vous voulez, en tout cas, vous familiariser davantage sur ce logiciel-là, je vous, je, vous, je, encourage et je vous, je vous, je vous, euh, encourage à, à à, à vous exercer davantage sur le ciel, sur le ciel là. Donc, sans plus tarder, aussi je vais remercier à tout mais étudiants donc, qui ont vraiment... Donc, qui vraiment donné un sens à ce cours parce que Euh, je, je dis et je le répète, l'unique satisfaction donc professeur, c'est de voir ses réussir. Donc moi, je vous souhaite une réussite et une bonne, prof, bonne suite donc, de carrière professionnelle. Donc j'espère que vous allez nous revenir et nous dire que c'est grâce à vous qu'on a décroché un tel poste, c'est grâce à vous qu'on est devenu directeur général. C'est possible. Donc, j'ai confiance vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Awa Diamba madame Ndiaye. waaw Thiam madame Ndiaye nga ñëwoon tey ci formation bi nga minute bi ñu doon def moo nekk coupe et te ci biir coupe et ñu ngi doon jàng chemise ak pantalon lañ doon def chemise ak pantalon ànd si ak suñu monsieur Seck suñu professeur macha allah. lan nga jàngalee formation bi bi nga fi ñëwee lan fi jàng nga am nga ci satisfaction ah bien sûr am naa satisfaction bu baax sax parce que man musuma def coupe dama doon jàng musuma def coupe écriture ba ma ñëwee damaa ñëw facilement ni mu expliqué comprendre naa ba instant bi macha allah génn naa si maa ngi ñaw. tey jii tey jii waaw maa ngi jàng musuma ko def c'est la première fois ma def. ah. xanaa kontaan rek kontaan naa si parce que Miss Sèck encadré nañu euh, teg nañu ci ci yoon boo xamante ni fu mu mënti dem si àdduna ndax comme te maa ngi koy soog a dinaa ko mën a kii waat defar. ban la lancé euh, ñi nga xam ne ñoom nga bokkaloon ñu jël la au nom ci wax seen ak partenaires yi nga xam ne ñoom lañ am waa EDEB ah, dama leen di sant rek di leen gërëm te xam ne lii yombul nga jël ay jeunes di leen former Sénégal léegi jeunes yi liggéeyatuñu nga jël leen di leen former xanaa di leen ñaanal rek li ñuy def ñu yokk ci ba yëg di ñaanal tam ñi nga xamante ne ñoom laa nekk lool ñu nekk ñu baax macha allah yàlla def suñu. suñu lii yàlla def ba tey jii ñu joxe suñu attestation yi dama leen di ñaanal ñu nekk lu xam ne moom la mooy suñu njëriñ. man xanaa formé sama entreprise tuddee ko Eva Couture. waaw. mooy maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gërëm suñu monsieur monsieur Seck macha allah. merci beaucoup. merci beaucoup. si ñi nga xam dañoo def formation entrepreneuriat. Euh, mu mel ne euh, ak naa yéen vraiment def formation bu mucc ayib la. avant tout d' abord dama leen di remercier yéen ñi ñëw fii ni teew di remercier suñu formateur mi nga xamante ni si ni mu ko tàmbalee woon mooy wax ñu avant tout avant tout mooy kii nii euh, am xam-xam bi moo si ëpp solo am diplôme bi am na solo reconnaissance la mais boo amee xam-xam bi nga am capacité mën a def li ngay def moom moo si ëpp solo donc formation bi jaar na yoon ni ñu ko tàmbalee wan nañ ñu nan mooy lan mooy entrepreneuriat am nañ ci beneen euh, gëstu beneen beneen bët boo xamante ni si ni bokkul woon ak ni ko daan déggee ni ñu ko daan gisee waaw oui am naa ci satisfaction bu jaar yoon waaw am nañ satisfaction bu jaar parce que daf ñuy permettre au delà de li ñu formé fii nii mais ñu mën a xam ëllëg nan la ñuy bindee suñuy projet en entrepreneuriat. ban message ngay que ñu message bi ma am mooy si jeunes yi mooy que. fu ngeen gisati formation muy entrepreneuriat muy yeneen domaine si activité yi mu nekk ay formation yoo xamante ni dafa am solo il faut que ngeen dem ngeen participer ngeen ut si xam-xam ngeen sàkku si parce que xam-xam du doy boo demee nga am sa xam-xam ëllëg dina la permettre boo amee beneen idée de projet ni nga ko mën a bindal sa bopp dootoo sonnati di dem di ut feneen te wala tamit boo gisee beneen projet bu nit bind yow si sa bopp yow mi nga xamante ni jeune bi am def nga entrepreneuriat di xam ba xam projet bi baax na wala baax waaw donc di lancer jeune entrepreneuriat parce que fii si réew mi nii mën nañ fee tekkee mën nañ fee réussir juste rek dañuy oser ñu jug def waaw loolu mooy l'essentiel waaw di di remercier partenaires yi rek parce que ñoom ñooy permettre nga daal di mën a def sa formation ñoom ñooy fay formateurs yi parce que c'est pas facile nga jël ni déplacé ko di que pour mu ñëw former la ay jeunes donc di remercier partenaires yi bu baax a baax si seen action yi ñuy mëne si surtout si à à l'égard de la jeunesse sénégalaise. mon dernier mot, c'est de remercier ici l'entreprise EDEP qui nous a mis dans de bonnes conditions de formation et de remercier aussi notre professeur Mouchembaï qui nous a formés bien. par rapport à... Bon, je pense qu'il a tout dit. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est de les donner les bases nécessaires pour au moins évoluer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'on depuis le début, en Et vraiment, c'est des gens persévérants. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier facile. Parfois, les jeunes n'aiment pas l'entreprendre. Les jeunes n'aiment pas entreprendre. Mais eux, ils ont su être persévérants. Durant toute la formation, ils étaient assidus. Ils ont de projet. Ils ont réalisé leurs idées de projet. Ils ont des business plans. Et maintenant, eux, ils sont des spécialistes en entrepreneuriat. Ils peuvent accompagner des entrepreneurs. Ils peuvent écrire des business Et c'est important. Donc, je pense que l'idée, c'était ça, c'est de les en tant que coach, en tant que mentor. Et vraiment, je suis satisfait de leur exploit parce que eux, ils ont fait beaucoup d'efforts pour au moins réussir cette, cette, formation. Donc vraiment, euh, nous remercions, aussi les étudiants, à savoir lui, c'est Bah mais vraiment c'est un travail. Donc, à tous les autres étudiants qui, ont, qui étaient là, qui ont aussi travaillé ensemble du début la fin, jusqu'à la réussite. Donc, vraiment, nous remercions aussi la ZZ qui a financé cette formation. Cette formation. Donc, en gros, c'était ça. Merci. C'est bon. Euh, tey nga ñëw seet si woon sa professeur Matar euh, mu defoon benn formation mu mel euh, zone nord ak groupement de amaan nañu mbégte. jaar bu baax di jaajëfal aussi di sargal ki nga xamante ni moom professeur Matar Seck vraiment di kontaan si moom bu baax si liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom lay def si groupement bi rawatina si téere yi nga xamante ni ñoo nekk ci zone nord ak képp koo xam ne nekk na si département bi ah vraiment dañ ciy kontaan bu baax ginnaaw ba ñu nuyu président Moussa Fall ñu àndal ak président Bara dañ koy rafetlu bu baax parce que depuis ce matin la ñu bëggoon a ñëw léegi dañu amoon benn moom bu baax moom moo tax ñu xaw a laaj mais professeur Matar ci bon jàppale ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom lay def parce que aussi xam-xam lu koy ak euh, xale yi xam la kon bu fekkee di ko def si appliquant yi rawatina téer yi ñu def duñ di ko rafetlu di ko kontaan bu baax moo tax lépp loo xamante ni nekk na si pour gën ko motiver pour gën ko jàppale ñun en tant que ñun dañuy ñëw dooleel ko ni dina gën a a réussir jàppale may appui loolu moom moo tax tey ñu def benn délégation avec président Moussa président Bara ñëw représenté li nga xamante ni moom mooy numéro jeune doole jëmee ko li nga xamante ni mooy formation bi lan ngay wax ci partenaires yi nga xam ne ñoom la ànd ci partenaires yi nga xam ne ànd naa ñoom tey ba réussir li waaw partenaires yi aussi tamit loolu moom la ñu soxla parce que vraiment lii moom moo si am solo nekkee si dëkk da ngay xool nan ngay mën jàppale xale yi mais partenariat yi nga xamante ni ñoo ñoo ko jàppale ba nga xamante ni moo tax modèle yi vraiment dañ leen di jaajëfal di leen gën a encouragé di leen xamal ni fii ñu teg seen tànk ah buñ ko teewee parce que lii moom mooy njëriñ te moom la réew mi soxla xale yi dañ leen a war di former di leen encadrer di leen jàppale defal formation yi mel nii aussi lii dañuy leen gën a ñaax di leen gën a tàllalaat muy gën di bari bu gënee bari rek aussi dina gën a am bu xale yi nga xamante ni ñoo nekk si biir dëkk bi aussi loolu dañ bu baax a baax waaw vraiment di kontaan bu baax aussi tamit di xale yi aussi ñu leen fekkee parce que boo leen xoolee ni ñu nekkee nga xam ni ñoom ñëpp kenn ku si nekk yéene na jàmm ak bi nga xamante ni moom la ñuy doxal ah, vraiment ñu leen di félicité bu baax lépp loo xamante ni jàng nañ ko fi rek euh, te muy xam-xam defal leen euh, réussir ak lu kawe seen jot aussi di félicité waat ki nga xamante ni moom mooy professeur ak euh, professeur li nga xamante ni moom moo leen jàppale ba ñu toll fii président Seck ñu ngi lay remercié bu baax si taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom la taxawee vraiment liggéey bi am na solo chaque moment yaa ngi def le tout pour taxaw sa njaboot di leen appuyer lii la ñuy soxla si kilifa te kilifa lii lay doxale di leen jaajëfal bu baax di rafetlu lépp vraiment ñuy jaajëfal merci beaucoup. la direction de Monsieur, nous vous convenons à remercier Elisabeth, à féliciter la qualité de la formation, vous félicitez par à la qualité de la formation et à l'éducation en général que vous avez installée chez les jeunes qui sont jeunes. Nous en recevons beaucoup, beaucoup plus que d'autres jeunes, mais ils font un travail exemplaire. nous tenons à magnifier cela devant vous. Nous, nos félicitations et tous nos remerciements à tout le personnel de l'ISEC, à la direction. Merci encore que cette collaboration tenais a être présent à cette importante cérémonie parce que Dieu sur le pied la sensation. Je vous ai tardivement hier nuit. J'étais très occupé à placer les jeunes en stage Mais quand même, je tenais à participer à cette importante cérémonie, magnifier la collaboration qu'on a avec, avec les jeunes. Vraiment, on reçoit beaucoup de jeunes de Thiès. Et présentement, il y en qui sont là, qui sont en train de dérouler la formation, si elle est bonne, c'est grâce à vous, vous qui êtes partenaire des autres, les autres partenaires qui nous accompagnent, qui reçoivent constamment nos jeunes en, en séjour, qui les, qui les accompagnent, qui les encadrent et qui acceptent quand même de, de, de participer à cette formation des jeunes du Sénégal. Merci et je remercie aussi M. Demain. Voilà, je viens de connaître tout ça. Voilà, je l'ai nos collègues hein, du PCD. E. Oui, oui. Était bien. Oui, oui, Vous êtes allé très bonne oui, aussi. puisque effectivement, de, de, sera dans. L'ISEP de Tchèque est dans un réseau. Et prochainement, il y aura l'ISEP de Mbaké, qui est accompagné par, par, par, par la coopération allemande. Et ce sera un ISEP thématique qui sera carrément orienté énergie, euh, énergie euh, renouvelable. Et ce sera grâce à. à cette coopération. E, oui, e. voilà. merci à tout le monde. Excusez-moi, j'ai bien aimé participer, mais moi, je suis dans une réunion on parallèlement. Comprend, voilà. Comprend. voilà. Encore une Et... fois, nos applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci aux formateurs, excellent travail. Merci euh, à tout le staff, n'est-ce pas, même à la porte, les gens de ménage, tout le monde contribue à ça et certainement le plus, plus, plus, plus grand merci à vous. Et le plus grand succès du monde et prospérité pour vous dans le futur. Allez, ah, merci. Monsieur Cheikh Tidiane Niang, Mademoiselle Nafou Sarr Monsieur Pape Ibrahima Diambou Monsieur Mor Diop Mademoiselle Alima Dian Mademoiselle Ali Mademoiselle Khady Choy Mademoiselle Lalla Dieng Mademoiselle Lalla Dieng Mademoiselle Fatou Diouf Monsieur Cheikhou Dianko Monsieur Cheikhou Dianko Mademoiselle Aïda Fall Mademoiselle Fatoumata Cissé Madame Gaye Kane madame béykat lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a kat ma bëgg ñan la ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal dëkku gay ne jaay mooy sunu te ci junne dëggal ma bësin déggee noonu lay déggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen tëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko noonu lay demee fa ngeen may seen tuuman foofu lay jubal di ko jubant di ko jubant bëgg naa